Thank you. communiqué numéro 29 du ministère de la santé et de l'action sociale communiqué bi nga et ne docteur Bousso dina nous def nous mise au point Qui bésu lundi bi fanweeri fan ci mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat examen virologique qui may waaj lim ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif maanaam juróomi kaa importé moo ñu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu jóge yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malade yi ñu ospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malade yu sonn yu nekk sawataas ci bésu tey dale ko ci cas bi ñu njëkk a am Sénégal woññi na téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas wër nañ ci mu des téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu Doli di wo askan wi ñu samantek ndigle yi nga xam mom lañu la ñu joxe. jërëjëf docteur Aloyse ñu gërëm ko sant ko bu baax a baax nuyu leen suñu mbokk téléspectateurs yi fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen balu àq di leen bal àq Euh, di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk nag euh, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, gërëm sunu ñaari wayjur di gërëm di sant Fatou Francesca Jafune moom ngeen àndaloon semaine bi ñu génn di ñaan rek yàlla na yàlla wàccee jàmm ci réew mi waaye wàccee ko ci àdduna bi yëpp ci balaa bi nga xam ne nii nag yàlla moo ko wàccee yàlla mi nga xam ne moom moo ko wàccee yàlla nañu ko yàlla teggil fépp ci àdduna bi macha allah waaye nag lii yokk tax ñu teggi ko mooy rek euh, li docteur yi di wax rek ñu di ko jëfandikoo ñuy nuyu di ziar kilifa diine yi kilifa aada yi euh, di ñaanal ñi feebar yàlla yëkkati leen euh, ñoom ñëpp ñu delluwaat nag ci seen i kër ñi nga xam ne dañ nekk ci ay tolof tolof yàlla neen ci yàlla génne ñi faatu ñoom it yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom bépp ne wuñ fa fekk wala bu leen fa fekk macha allah fa tabarakallahu niñ koy defee nag altine bu nekk tey jii dinañ ànd ak njéeme sama rak dal di dugg ci waañ wi nag ndax nag Euh, saaku bu amul dara du taxaw euh, buñ ci paree dinañ ànd ak euh, tonton Adi ak it ki nga xam ne moo di ganam di capitaine Moustapha Kane bu service d'hygiène ma bàyyi rek tonton Adi mu nuyoo ziar ko ñu nit nuyu ko bu baax a baax nag daal di koy ziar macha allah fa tabarakallah alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala nabil karim sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Aysatu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax waa ñu ngi delloo yàlla njukkal moom ñu xam ne ci kàttanam lañ fi teewe woon altine bi nu génn mm. soob na yàlla ñu teewe ko altine tey yàlla bu mu doon su mujjante amiin amiin waat amiin waat di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ci réew mi yëpp sëriñ Muntaxa mu sëriñ Basiru mm-hmm. waaye sëriñ Babacar Si mu Alaaji Mansour mm. di gërëm di sant sëriñ Babacar Si Abdou mm. moom mi xam ni dégg na waye je hmm. li je ne moom hmm. ndaw di nuyu papa Cheikh Ahmed Ibrahim hmm. ak imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali nañu ay ci bi ndax d'al. ay yalla dal na ci ñun yalla ko di kilifa kilifa di président de la république di te di ñaan ñaanal yal na ko yàlla may ndam. amiin ndax ndamam mooy réew mi muc mhm. yàlla na réew mi mucc. amiin amiin waat capitaine Moustapha Kane. Mhm. capitaine ñu ngi lay dalal jàmm. Mhm. ñoom moom ingénieur la. amee kuréel bu koy jëm ci wàllu cet. jëm ci askan wi. ci biir service d'hygiène. suñuy maam ak suñuy maamaat suñuy baay ak suñuy ndey xamoon nañu rôle lu service d'hygiène. rôle boobu mosul jóge ci réew mi. capitaine asalaamaaleykum. Euh, jërëjëf El Hadj euh, jërëjëf Aïssatou ci invitation bi nga xam ne invité ngeen nu ko euh, service d'hygiène ngir mu ñëw fàttali taxawaay bi ak li nga xam ne moom la ñu séenu ci nit ñi. ci situation bi nga xam ne ñu ngi koy vivre muy Covid 19 bi. Mhm. am nañ mbégte lool nag ci teew ci émission bi nga xam ne day émission bu am solo. Mhm, maa ngi indi tamit nuyoo sunu kilifa. Mhm. colonel euh, médecin colonel Moussa Dieng Sarr. Mm-hmm. ndax ci moom la loxoom service d'hygiène nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. moo na fi yebalit ca ñu soññi saa su ne. ndax dañoo xam ne ñun suñ liggéey. waxtaan ak nit ñi da cee am place bu am solo. kon véritablement daal ñu ngi indi nuyoo waa service d'hygiène yëpp. di am mbégte ci émission bi. te yaakaar ne aussi danañ fi wax loo xam ne dana mën a jëriñ nit ñi. jërëjëf euh, ñu dalal ko jàmm ñun dañuy am mbégte saa su ne di leen dalal ndax li ngeen di indil askan wi moo am solo kon it euh, colonel moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a mm-hmm. baax a baax waaye it ñu ngi nuyu ki nga xam ne kii moo di adjudant Alla Ngom euh, ndax ñoom it nag macha allah daan nañu ñëw tonton Adi ci li nga xam ne ni moo di jëkk këram bi ñu nekkee ancienne maison mm-hmm. yàgg nañu di ñëw macha allah di waxtaan ak askan wi dañ koy rafetlu tonton Adi semaine bii lan lan moo ci xew. suñu demee léegi seetaan élément bi mhm. nga xam ni mhm. mag ñi dañ daan wax ay wax mhm. ñu di ko dégg te bàyyiwuñ ci xel capitaine ñu ne lu ñëpp bokk kenn mënu ko xaajoo dëgg la ñu ne benn bopp kenn mënu ko xar ñaar waaye wax la woon ku nekk di ko wax waaye ndax yëgoon nañ ko ci suñu xol yàlla damm suñu loxo indi lu xam ne kenn ku nekk di nga yëg ni. Mhm. li ñu bokk mu ëpp lu ñu taqali. am na solo yàlla indi mbas. macha allah am na solo. Mhm. doomi réew mi yëpp daje. Mhm. fekki doomi réew mi. muy président de la république. ay setu keroog ba ma toogee ci sama kër. la ko dalee ca président Idrissa Seck ba ci nit ñi xam ne ñoom la mujj dalal. de dama yëg ne yàlla mu ngi ñuy fàttali ne benn bopp rek lañu. am na solo macha allah am na solo macha allah tonton Adé xam naa dinañ ci dellusiwaat loolu da di comprendre rek moom bu duggee ci biir semaine bi nag saa su nekk daf ñu indi sujet bi nga xam ne nii moom moo gën a fës ci semaine boobu kon dinañ ci dellusiwaat macha allah ak euh, moom euh, dañuy dem rek ànd ak sama rak wax naa ko sànq nee naa leen saako bu deful dara du du du taxaw euh, li nga xam ne ni nag ñi sant jéeju ñi sant sàll dañ koy xaar ñoom ci émission bi ak ñu sant ba dañuy dem rek jox leen ko doo dellusiwaat ci plateau bi asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay wala it seen yéeguwaay di leen ziar bu baax a baax a baax ci altine ji euh, di wax ne rek euh, seen émission euh, jekk ak këram lañ dellu siwaat waaye seen rubrique ndabu tey comme nuñ ko baaxoo altine bu jot rek tey nag ñi ngi fii nga xamante ni nag moo di rajab fas yéene fee ut si li nga xamante ni moo di pâtisserie daal di koy def ci ndab li pâtisserie boobu nag ka koy defar ak nu koy defaree si loolu la ñuy jublu rek ci waxtaan ak ñoom bu ko defee rek ñu def ci ndab li ngeen servir leen mu rees ak jàmm asalaamaaleykum sëñ bi naa la euh, naka waa rajab ñu ngi si jàmm alhamdulilah am euh, dañ fi ñëw tey euh, di la laaj loo ñu mën a defal ci suñu ndabu tey bi ginnaaw bi nga nuyoog ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan bu ko defee nag tey gannaaw boo nuyoowee lan nga nuy defaral tey ñuy ah, dañuy sant yàlla d' abord euh, dañuy sant yàlla d' abord euh, di lee di gërëm suñu borom di gërëm borom kër gi parce que lépp moom la ñun nag ay taalibe lañ yoo xamante ne liggéey moo ñu sant dañuy liggéey li ñu war la def euh, kër gi nag kër gu bees la mën naa ne benn at la amagum. benn at boobu nag lu mu liggéey lu euh, ñu ne mu ngi dox na 100 pour cent mais ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi sant yàlla parce que liggéey mu ngi avancé comme ni ñu ko bëggee ndànk-ndànk waaw fii nag euh, pâtisserie la boulanger euh, fast food lépp la ñuy defar man nag wàllum pâtisserie bi viennoiserie laay defar viennoiserie damay defar ay croissant pain raisin pain chocolat drops sacristain ay merveille ay pizza yëpp lay lay defar lépp lañuy ñuy defar quoi waaw la ñuy defar. tey lan nga ñuy defar tey li ma leen di defaral mooy euh, dama leen di pat croissant liggéey leen ay croissant ak ay pérésin ak euh, chocolat ak ay drops yëpp ñu exposé ko xool. ñu xool nu muy demee ngeen xool nu muy demee. léegi nag euh, bu ko defee dafa am fooy yóbbu pour pétrifier. Euh, donc dañ lay bàyyi nga yóbbu loolu. daal di pétrifier soo nu indilee pat bi ñu daal di jublu si li nga xamante ni moom mooy forme yi. ok nañ def loolu. voilà léegi euh, lan ngay ñëw def si nii. damay ñëw tuure pat bi. waaw koy tuure moom mooy ànd ak beurre bi quoi डेढ़ किलो भी नैक सै सौ ग्राम है जब सै सौ ग्राम वाले हाँ। ये चूरे बेले चूरे घूम को ये महिला में नार को उम्मा है ताले पन हाँ तो ताले में वापर है heure bi ngay jafe bër bi ngay jël bër bi teg lem ni prometo léegi eh, dama koy dugal chambre froide dans cinq minutes cinq minutes ba dix minutes su manee mais chambre froide bu seddee bu baax mën nga dugal cinq minutes bu seddul normal dix minutes nga soog a mën a deux deux deuxième tour quoi deuxième tour et premier tour lañ def nii. waaw Papis. waaw. Ah, suñu deuxième tour daal génn na ba ñëwaat toog. léegi fu ñu jëmaat. troisième tour. lii mooy dernière quoi moom mom dañuy ta leb rek dugal après ñu étaler génne suñu produit génne suñu produit Suñu forme quoi Wa suñu forme forme croissant forme croissant pain raisin pain chocolat drops yooyu yëpp day génn waaw yo yépp. ci nek nga génné ko ci waaw waaw kon nak mbokk yi xarit yi ni ngeen ko gissé euh lek croissant yomb na waaye nak defar bi mo jafé. ba tax na gis ngeen ay trois tours ngeen gis ne moom lañ koy eh, eh, di ko di ko di ko dër di ko dër ñetti yoon dugal génne maanaam da duñ ko dëree ba pare dañ koy dugalal ci chambre fat bi mu sedd ñu indiwaat ko dëraat ko indiwaat ko dëraat ko ci troisième phase bi lañ tollu nii macha allah bu buñ ca noppee nag dañuy ñëw rek génnee suñu ay pain raisin suñu ay croissant ngeen ñëw déguster waaye nag dañuy defar forme yi ba pare yóbbu ko ca four ba yéen faa leen ni xaar leen ma maa ngi ñëw. lañ soxla ci croissant gis nu muy foyetee pat beurre pat beurre waaw looloo waral ñu koy tuuree nii muy léegi boo lakkee croissant yi muy croustillant ngay gis muy xolleeku noonu loolu gis lii moo koy waral. tourage bi nag lii moo ci am solo quoi. itong mo siya solo pat patber gis na tere tere ngi gis ni ni tagalo patagber patagber patagber mo kay dal wala waa papis dafa mel ni wat nga ko fële ci muy seddee daal di koy étaler étaler naa ko ba pare léegi damay découper wow. wah cukup kok voilà mu génne la forme lii nag boo ko amul boo amul lii Mengejel nga jël paaka ngay kok. mais lii moo gën paaka parce que lii li nga mën a génnee si lii sa loxo quoi voilà ñu dëgg li ngay koy ko def ci yow ñu fekk ko fekk ko fekk ko fekk ko fekk ko vive way fii ñu dëgg fekk ngeen daal di bëgg Kankalamatu Moustapha Diop Maxoro Jabala Ñaan mooy sa maam doomu Lugaloo Aja Joor mooy sa yaay nit ku baax Luga ko waa yaa ngi dimbale te jàppale Sidi Diop mooy sa baay Moustapha Moustapha Diop Moustapha Bassirou sa baay Diop Diop sa yaay te raisin moom nii lañ koy defaree day talee def sa crème si biir nga lem def crème ak raisin si biir nga lem nii lañ koy leme moom gaaw na 그렇지, 그렇지. 다음은 여름만 빠가 눈물 봐. laay dagg nii léegi damay teg chocolat bâtonnet bi mesurer ko pour mu tolloo quoi chocolat bi laa jël teg ci kawam lem jëlaat beneen teg ci kawam nii nga lem teg ja nekk ñaari bâton yooyu am quoi lem bi tamit dafay kii lépp bi si digg bi lay nekk quoi si mooy teg moo tax bu jógee du fireeku quoi du firéeku boo ko tegul teg bu normal buy jóg day firéeku day ibbeeku quoi am ñoo xam buñ lemee nii xam na lii cat la tegal mun naa tegu des fois muy jóg di firéeku si suuf nii normalement pili bi si diggante bi lay nekk ci digg waaw gisee ndaxte lu ma ma tolli ndaxte lu ma si doom yow fii yaa dina la konteel fii yaa dina la fiisteel fii yaa dina la nen la nen la kese nen la bu ñuy def pour nga doore ko moom mooy tax affaire yi doore quoi boo ko lakkee foog nga doore ko premier tour après xam boo ko dugalee sam fermentation ba mu jóg soog a doore waat deuxième tour xam nga dugal ko mooy tax affaire yi di joxe couleur bu doore quoi léegi lu ñu liggéey mise en place bi ñu defar yëpp a ngi nii après ñu soog ko lakk quoi moom moom kenn du ko dugalee nii da ngay def teg ci biir chambre fermentation mu jóg di pousser ndànk-ndànk pousser dugal au four mu ko quoi lay quoi lay euh, pérezin pain croissant chocolat croissant beurre pain chocolat torops mo ngi ni li lañ leen defaraloon ci bis bu tay quoi waaw comme ni nga ko waxee papis àgg nañ ci càppaandaw gi macha allah liggéeyal nga ñu liggéey bu gaaw bu xarañ macha allah lépp lu ci nekk rek jox nga ko àqam comme ni ñu koy waxee ba mu àgg ba nit ñi xam ne li ñuy lekk am na fu muy jaar ba mu mun nekk produit fini donc loolu la leen indiloon bu ko defee nga ni pain raisin yaa ngi nii croissant au beurre croissant chocolat euh, props ak ak pain chocolat mu nekk yu neex macha allah neex ci ndékki neex ci fépp guute xale yeeg bépp euh, loolu yëpp nag fii lañ ko defee fii di rajab bu ko defee papis lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo toog di la seetaan. sant yàlla euh, ginnaaw ba ñu sant yàlla dañuy julli si yonent bi euh, di ñaan yàlla suturaal ñu suturaal bépp mboolem jullit. di ñaanal bépp doomu aadama jeunesse bi xale yi ba si mag yi euh, képp kuy wut liggéey yàlla na la yàlla yombalal ku nekkoon si liggéey mu taxaw yàlla na ko yàlla yëkkatiwaat ba mu jóg waaw lii nag suñuy métier la boo xam ne dañ koo bëgg yàgg si lool yàgg nañ si loolu boo mu xoolee xale bu ndaw laa mais dama yàgg si métier bi quoi dama see yàgg ba lu ma si xam rek yàlla dong ko xam quoi yow foo ko jànge foo ko jànge wala ah tax nag Lazeri Sandaga am na ñoo xam ne jamonoy weeru koor kenn du leen fa jiitu si dëggantaan balaa jànge métier bi yàlla def ma jóge fa jaar naa bërëb yu bëri nag kon naa Pointe des Almadies jaar naa xam pour gën koo mokkal daal pour gën a foq pour gën a am laa may. voilà loolu nag moo ma dimbale ba mu am xam-xam bi yemuma si lii donc la may defar dafa bëri si produit mais comme tey bis bee laaj lii ñu liggéeyal leen liggéey. te duñ la bàyyi sax dinañ dinañ defaat yeneen incha allah. benn problème lool yëpp amul benn problème waaw maa ngi nuyu. waaw <laughs> waa jéeg këram. di leen ziar. Uh-huh. di leen wax seen liggéey rafet na. di sant sama yaay. sant sama baay. di leen sant di leen gërëm. parce que lépp ñoom ñoo ko def si man. li ma mel nii ñoom ñoo ko def si man. Euh, ñoom ñoo may pousse di ma ñaax liggéey bi di nuy sama soxna. di nuyu samay rakk. di nuy samay xarit. samay am di jàmm di nuyu borom kër gi di nuyu ay liggéeykatam di nuyu ay mbokkam di nuyu ñi fi nekk ñëpp quoi Eh, di leen sant di leen gërëm waaye duma fàtte ki nga xamante ni moo di Anta Thiam Anta Thiam nag moo def vax bu rafet bi macha allah defal ma robe bu rafet bi ma musóoru musóor bu baax gi boole bul wàcc dafa wala ngaan bu ko defee nag eh, Anta Thiam ma nga nekk fële ca lak eh, ndangaan cœur de ville diggu cœur de ville di ngeen gis numéro de téléphone am ma koy sant bu baax sama doomu ndey col crési boobu Thiam Babel Demba Thiam laa koy wax tëgg bi dawul mbaar diplôme la ko tonto di leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje fii ci rajab ndax bàyyeeguñ leen ndax yëpp dafay baax incha allah jeme ma sha allah li nga indi wat amna solo lol na xamna dama koy may wa Sweden rek eh, ki nga xamne ki modi roxi Daba ak wa Angleterre jojo jojo Guèye jaaj ma nga fofu ñom ramu koor ak nek fi ci Gambia ak anti ami ma nga ci États-Unis ndax xam nga côté fi mu toll ni confinement total la sha allah ñu seen biir kër yi tok di sétat kon di leen yobante yi da ci bax eh, tonton Adi dañu ñew nak ci li ci biir kër yi waaw li ci biir kër yi lu xew di waaw xam na non la waxe kon maa ngi lay bàyyeek euh, Sagan. Mhm. ñu waxtaan ci Covid 19 bi. xanaa ay surtout ma waa régie. Mhm. ñu yónni ñu élément bi njëkk. Mhm. balaa ñu dugg joxtaan bi maak euh, capitaine. kon ay ca ñu dem ci élément bi. ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moom la njiitu réew mi njëkk dalal ci alxames ji.

Euh, yaakaar naa ne buñ ko toppee ni mu ko bëggee euh, yaakaar naa ne suñu borom dinañu dimbale. moom it nekkoon na njiitu gouvernement bi Cheikh bu Soumaré gis ne li njiitu réew euh, di def lu war la ñu jàppale ko. li mu def nii président man ngi ko ciy remercier parce que lu baax la parce que ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañu tey boo xoolee àdduna bi li ciy xew nga xam ne lii dootul affaire Euh, parti politique dootul affaire u parparloo affaire bu sérieux la te ñun war nañu xam ne lu sérieux moo tax euh, doomu Sénégal yëpp war nañ ci jóg ñu taxaw ci ànd ak gouvernement bi ànd ak état bi dooleel état bi aussi parce que boo nee dooleel état man fonctionnaire la euh, boo néewalee doole état rek yaa ngi néewal doole sa réew ci moment yi ñu toll nit ñi war nañu xalaat ne dañu war a dooleel état bi pour que mu mun a jël mesures yi nga xam ne moom la war a jël continuer di ko jël. député vice-président de l'Assemblée nationale Cheikh Tidiane Gadio moom nag li mu gën a bàyyiloo xel nit ñi moom mooy position bi président Macky jël jëm rek ci dette bi suñu réew yi ameel jamono ji partenaires yi. Afrique bor yi ñuy toppee réew yu mel ne Amérique jël lu mot. deux mille milliards xaw ma sax dafa rëy ci ci suñu budget yi ñun fii ba doo ko mën sax faram-fàcce pour expliquer ko xaalis bu dul jeex lañ jël pour xeex coronavirus français yi jël lu mot trois cent cinquante milliards pour dimbale ko seen i entreprise donc réew yi état yi ñu ngi wala ne buñ jaaxlee am na ay ressources ñu mën a am ressources yooyu tamit bu lii passé suñu système mu santé maanaam mbiru docteur yeeg hôpitaux yeeg yooyu lépp ay changé mbettel bi ñu am nii yàlla buñ ko amati nañu góorlu pour bu lii bu mu ñu dalati parce que kenn prévoir ko woon ci monde bi ñëw na nag nit ñaa ngi koy xeex président ci li ma gis gëstu na ko réfléchir na ci jël na ci ay matuwaay yu bare beneen élément nag bu important mooy bu ñu kenn ñëw di ñu fayee ko ay bor nee na boru Afrique nañ ñu ko baal nañ ñu ko jégal waxuñu dette privée bi dette privée bi nañ ko maslaa nañ xool nañ ko si mais dette publique bi mën nañ ko dàq annuler ko wala ñu dàq parce que mënuñu ko fay. député maire bu shor Abdoulaye Balde, Momit nitriomi dalal Noko. yi kaddu la yëkëti euh, bi mu euh, ci waxtaan wi. Euh, dalal président de la de dalal pour man honneur le lu melni consulter l'ensemble des fils du Sénégal ñu bolé ma si. aussi la localité sori parce que prélèvement bi ak euh, analyse test test les xam prélèvement yoo def important euh, déjà au niveau de ma ville nous ngi confiné près de 200 personnes donc c'est important que résultat yi soient teel pour que nit ñi xam kan mo am jàngoro bi ak ko amul donc là aussi waxtaanee nañ ko wax naa ko ñu fa am euh, parce que ak frontière bo xamné ko entre la Gambie et le Sénégal il faut faire 900 kilomètres pour acheminer les prélèvements donc lolu jafé jafé la bon joxe na aussi ay proposition pour que soit ñu def avion militaire boo xam ne dafay dem jëli prélèvement chaque jour mu indi par deux jours euh, pour que ñu mën a am résultat yi mu gën a gaawee. ki nga xamante ni nag moom la wuutu ci mairie bu Ziguinchor muy ministre d'État Robert Sagna moom it njiitu réew mi dalal nako, Nico ni ko ay naataangoom defee moom it rafetlu lool doxalinu président Macky Sall jëm rek ci xeex li di coronavirus bi lëmbee àdduna jërëjëf Omar ñu ngi ci élément bu am solo boobu tonton Adi eh, sa gan a ngi toog eh, waa service d'hygiène ñëw di waxtaane li nga xam ne nii mooy feebar bi waaye nag président aussi am na jéego yoo xam ne nii def na ko ci yu am solo wax naa ko sànq bi may ubbi que yàlla natt nañu ñu xamaat ni mhm. réew mi benn bokk tey nag réew mi moo oote woon réew mi moo oote it ndax ki oote ak ki wuyu ñoom ñaar ñëpp ñoo yem daraja ki wuyu nag am daraja ndax nit dina wax lu mu gëmul nit dina defit lu ko gënalul mhm. waaye mag fu mu dem def ko neex kon ba président Maté ba oote ndax réew mi mm-hmm. la ko dalee ca président Idrissa Seck ba ñii ñu tànn wane leen muy Souleymane Ndéné muy bu Soumaré ak ñi fi wane ñëpp kenn ku nekk ci ñoom dafa am cër bu xam ne am nga ko ci réew mm-hmm. waaw du ñu gis rek dem bi dikk bi li waral lii tey ba kenn sañul bañ li waral lii ba kenn sañatul am benn sañ-sañ ci sa bopp mm-hmm. kan moo ko sañal muy buur bi xam ne Baye Niass waxoon na radiyallahu anhu ne yàlla ku jar ragal ñu laaj lu tax mu ne yàlla daal dafa jege daf ñu jege lool dafa bëri doole lool waaye dafa gaaw lool capitaine na kuy boole ñetti ñi yëpp feeñ na ci afeeru covid 19 bi ma toog ak yow nag mhm. yàlla dink la nga bokk ci njiitu colonel

ci wàllu wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram ñaari pàcc pàcc bi njëkk am na pàcc boo xam pàcc la mhm. nga xam ne médecin ko yore infirmier yee ko yore waaye feebar dañoo xam ne aussi dañ ko gëstu jàngat ko ba xam yoon wi muy jaar pour dugg nit ki mhm. nga xam ne kon pour que mbir mi mat faw aussi ñu wax nit ñi xamal leen lan mooy joxe feebar yi ñu mën koo moytu ba ñii faj tamit duñ leen yóbbul loo xam ne seen kattan dootu ko mën a dékku mhm. ñaari pàcc yooyu yéen nag yëpp dafa war a dox mhm. service d'hygiène nag ci loolu lay dox ndax euh, feebar wàllu set da cee am solo muy li ñuy wax hygiène xam-xam yëpp daje di ne bu fekkonte ne hygiène bi nit ñëpp règle yi nga xam ne tëral nañ ko ñi ngi ko doxal mhm. feebar yi nii muy demee dana wàññiku ca defe naa ne buñ demee ba ci biir waxtaan wi da gis ne digtal yi ñuy def yëpp ci wàlluk set la wàlluk hygiène la hmm. mu mel ne buñ ko farataaloon hmm. laata lii di ñëw sax hmm. mën naa am fii mu yegg mën na fi bañ yegg waaye du tax du tee nag ñu gën a ñaaxaat nit ñi nag gën leen a fàttaliwaat kon service d'hygiène moom ci loolu lay liggéey taxawaaye min foofu la nekk ndax moom dañ ko jox mission yu bari mission bi ci njëkk mooy di waxtaan ak nit ñi di leen xamal nit ñi bañ ñu de waaye mën nañoo bañ a xam ca léegi danoo toll jamono joo xam information day jóge fune ci information yi si birut bari kon ñi nga xam nak ñom mom ñom la yalla denk liggéey boobu muy ministère de la santé ci président comme ni nga ko waxee léegi dañoo nekk ci temps de guerre te guerre bu amé dafa am ab général bu wara taxaw ñepp top ci ginaawam kàddu gi di genn wax ji di genn pour ñu mën koo gañe moo defe naa lii nga introduire léegi amna solo wax na né li ñepp le concerner kenn ku ne am nga sa loxo boo ci mën dugal moo xam ci sa biir kër nga koy tàmbalee moo xam ci sa koñ nga koy doxal wala ci biir réew mi yëpp nga koy doxal kon service seen liggéey bi mu ci am dafa am solo ndax boo waree waxtaan ak nit ñi war ngaa xam nit ñi tolluwaay yi fi mu toll nga xam ne ñun ci suñ liggéey dañuy dem nit ñi def ay enquête xam ci wàllu wér-gu-yaram lan lañ ci xam wàllu cet lan lañ ci xam ak lan lañ ci xamut ak lan mooy seen bëgg-bëgg que dans les dañ daan def dañ daan ñëw rek ak suñuy xam-xam su ko defee ñu yaakaar nit ñi daal dañoo war a ñëw rek sol leen ni ñu yore déedéet mm-hmm. faaw fa wax ak nit ki mm-hmm. lan la xam déjà parce que nit ñi tamit seen biir mm-hmm. ci aada yeeg ni ñu dundee am na ay xam-xam am na ay expérience yoo xam ne yëpp bonut dañoo war a ak ñoom nag ñun li ñu xam ci wet gi ak ñoom ni ñuy dundee buñ toogee rek buñ waxtaanee mën nañoo xam yoon bi ñuy jaar te loolu liggéey bu rëy la la laaj na ay enquête laaj na sax nit ki boo waxee moom ndax télévision laay jaare ndax rajo laay jaare ndax damay dem fa ci koñ ba lu mhm. luñ ci def rek fi mu ne xamal ne dañ koo gëstu ba yaakaar ne yoon bi buñ ci jaaree danañ mën a dem ci danañ li ni li ni wax dana mën a yegg ci nit mi mhm. ba ci àll bi mhm. ci dëkk yi nga xam dafa sori sax dañuy ñëw di waxtaan ak ñoom ba ba parce que nit ki mënoo def ci moom loo xam ne jàppul ne moom ci boppam am na lu mu ci war a doxal moom dafa war a jàpp ne lii ñu koy wax mhm. pour mu mën taxaw gis nga xeex feebar bii da leen mhm. lu ci fajkat yi mën di def te nit ñi dañ ci am taxawaay boo xam ne feeg taxawuñ ko ci muy lu wér mhm. xeex ko dafay jafe ndax dañ leen di digal ci digal yooyu ñu war koo def buñ ko deful rek ay jafe jafe day daal di am service d'hygiène kon boo xoolee am na ay loi code de l'hygiène am na yooyu yëpp dañ ko tafa taxawal ko rek ngir véritablement nit ñi set gi yokku te gis nga wax dëgg yàlla léegi am na ministère de l'hygiène boo xam ne sax mi ngi fi mbiri encombrement yeeg yëpp ñu ngi ñu ngi ciy wax waaye teewul ba tey service d'hygiène moom dafa am liggéey yëpp spécial boo xam ne waxtaan ak ni ñi ci la jëm ak nekk ci wetu nag euh, gouverneur yeeg préfet yi mm-hmm. pour ñoom tam ci wàllu googu ñu mën leen ciy xelal loolu di ay liggéey frontières yi mm-hmm. dañ fay am ay équipe mm-hmm. ndax xam nga am na lu bëri ca feebar bi sax wane na ko euh, do day ma mën naa ju léegi cim réew ak lu mu sori sori rek 24 heures yi mën naa ñëw cim réew ah. mm-hmm. Mm-hmm. gis ngeen dañoo mujj nekkoon na tëj frontières yi ndax loolay tax ñu mën a contrôler li nekk ci biir réew mi mm-hmm. service d'hygiène am na ay équipe yoo xam ne ñu nekk foofu moo xam aéroport la moo xam port la ca seen liggéey mooy di contrôler nit ñi ndax am na carte sanitaire ndax euh, institut nga xam ne équipe la boo xam ne mi ngi ci foofu frontières yi nga xam ne tamit moo ne suuf ndax binte jëy yi am na ñoo xam ne dañuy bëgg peut-être jaar ci frontières yooyu ca lu mel ne feebar bi fi jàlloon muy feebaru kii ébola mhm. daf ñu am ay njàngat yu bëri yuñ ci jàng. gis na fii danoo gis ne feebaru feebar maanaam mbiru wér yaram. Mhm. nekkatul rek mbiru ser mbiru ministère de la santé. Mhm. ministère yëpp ci am. cër cër. Ebola bi mu fi jaaree ba daal ci leen gën a jàngat loolu. ci it actuellement lii moo tax ba euh, rapidement avant feebar bii di am sax. waxtaan nañ ak service ministère yëpp yi nga xam ne yaakaar nañ ne kenn ku nekk zone ba nga nekk. boo jëlee lu mel ne frontières yi ñun rek nekkuñu fa. Hmm. douane dafay nekk ay eaux for forêts dafay nekk police dafay nekk. Hmm. ñooñu dañuy def ak ñoom sax ay formation ci hmm. wàllu hygiène. nga xam ne ñun fu nekkut ñoom mën nañ fa remplacer service d'hygiène. ñu tegal leen fa ay jumtukaay. yoo xam dañ ciy raxas ay loxo. expliqué leen ba nga xam dañu mel ne ñoom agent service d'hygiène lañu. ndax xeex bi comme ni nga waxee ne ñëpp ci war a jàpp. donc port dafay am euh, maanaam aéroport frontière yi moo xam ci réew yi nga xamné mo ñu yeur nga xamné ay yoon la yo xamné ne xam nañu ko ci mhm. amna contrôle service d'hygiène dafay am équipe mhm. kon gis nga service d'hygiène liggéeyam dafa yaatu buñu jëlé nak li nga xamné mom moy fièvre bi mom mhm. nga xamné ne lu daanu sun kaw la ñëpp avant muy ñëw ñun ñi ngi doon préparer wu ndax fi mu Sénégal amna comité national de de de de lutte contre les épidémies

boo xam ne moom mooy jëmmal décision yi nga xam ne moom la jël ci kaw boobu tamit am na centre des euh, euh, euh, opérations bi nga xam ne nii moo nekk ministère de la santé ñoom ñoo koy coordonné foofu mm-hmm. tamit ministère yëpp nga fa nga xam ne lu mu dogal rek tëral ko ni nii lañ ci jaar rek liggéey bi activité yi ñuy def yëpp du activité yoo xam ñun ñoo jóg rek di ko xalaat mais dañ koy xalaatandoo mm-hmm. teg ko kenn ku ne xam li ci sa cër nga di ko dox ca mm-hmm. service dafay nekk ci Euh, instance yooyu yëpp mm-hmm. ndax moom bu fa nekkee moom tam li mu li mu fa jëlee mm-hmm. bu ñëwaatee ci service bi mm-hmm. ak plan bi ñuy defar mën a méngoo ak li nga xam ne moom la nu moom la nu kii foofu muy lu am solo tonton Hady loolu dafay wane ne rek euh, service d'hygiène ñoom ñi nga xam ne ñoo askan wi ñoom vraiment jege nañ leen bu baax a baax a baax maanaam ñoom ñooy njëkk di di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ñooy population bi ndax ñoom ñooy dem di fekk population bi fi ñu nekk Euh, di waxtaan ak ñoom pour naka la ñu mën a def ba mën aaru ci li nga xam ne nii moo di jàngoro bi. bi loolu amee ngeen jël matuwaay yu jiitu. muy agsi fii. tey ban xeetu doxalin. ngeen jëmale ci askan wi. ak yan matuwaay. ngeen di wax askan wi. waaw ñu gën koo jël ci ci jamono bi ñu toll tem waaw xam nga jatuwaay boo xoolee matukaay yi nga xam ne boo xoolee sax au plan international mooy moo moo yooyu matukaay lañ jël. moy bi ci ñëk moy confinement tok ci kër yi éviter lépp lo xamné ni nii affaire mbooloo la ndax fièvre bi ni mi walé ci nit ak dafa gaaw ca dajé yooyu mo koy gëna def lool mom règle la bo xamné bu bu général la su démé ba ba ba ba dajoo dajee bi mënta ñak mu melni émission yu melni wala mm. ki mm. ñu mëna soré lu gatt gatt lu mat 1 mètre nga xam ne boo toogoon na ko am feer bi sax xëy na ay waxam parce que wax ji mi ngi euh, maanaam lor yi ngay génne mm-hmm. mooy dugg nit ki te borom xam-xam yi gis na ne bu fekkee mat na un mètre rek mm-hmm. mënta yegg ci moom kon comme ñun ni ñu distancé woon baax na trop baax baax na trop mm-hmm. ndax am na yoo xam ne nii tamit mënoo def confinement ba xëy na loolu daa war a dox ñooñu tamit kon faaw ñu te ak loolu li ci teg tegawaat mooy nag les règles d'hygiène ndax gis nañ ne feebar bi Euh, ci loxo lay gën a jaar. Mhm. maanaam bu weesoo lii ma la wax nit ki am ko ngeen nuyoo fekk na loxoom am na doomu jàngoro bi nga jël ko ci nit ki bu toogee loxoom li mi dem ci kanamam dafa bëri. Mhm. sànq sax mu rendre ci compte. Mhm. moo xam dafay toxoñ ay bëtam. moo xam day fonk kii ainsi loolu lépp ay buntu la ndax wax na ne feebar bi virus bi mi ngi jaar ci bët yi wala mu jaar ci bakkan bi wala mu jaar ci gémmiñ nga xam ne kon loxo. moom moo tax boo déggee ñu ne nan ñu raxas loxo yi. ak ndox ak sam dan dan nak am habitude di diir di kin ndax dan noo yaakaaroon ne ndox kese mën naa seetal ndox kese setal mo gi sa dañuy wax ndox ak sam ndax sabu moy ray doomu jàngoro boo xam ne nekkoon na ci sa loxo lol mom dañ ko digle ci au niveau mondial ba sax ñu wul ko bis journée mondiale ko xamne ni dañuy wax ne dañ ci def ay euh, campagne mhm. pour di xamal nit ñi ne buñu ñu raxas lu loxo. Mm-hmm. ak ndox ak sabu feebar yi jaar ci gémmiñ yu beuri mas nako mas na mm-hmm. kon xam nga lolu lu am ama am solo la. Mm-hmm. motax raxasu be am solo euh, loxo tamit xam nga ñun ñun sax ño wara a farata lool ndax ñun suñu aada loxo dañuy def ak mom lu ne. gis ki bu ya. loxo am lay soo dee liggéey sa loxo ngay liggéey mhm. soo dee lekk aussi sa loxo ngay lekk dëgg la nga xam ne ñun bu ñu koy digg digle ñun suñu xeet yi ñoo gën a fonk mhm. di raxasoo ndox ak saabu mhm. ngir di éviter feebar yi loolu moo tax première euh, règle d'hygiène bi jox nit ñi mooy farataal euh, raxas sa loxo ndox ak saabu ndax loolu mooy dindi tilim ji te saabu bi mën naa rey microbe yi bu loolu wëyee gis ngeen ay gel yi ni joxe gel hydroalcoolique loolu tam nga xam ne ab désinfectant la waaye loolu nag ci loxo yu set lañ ko war a def bu sa loxo setee ba pare nga ciy door def gel nga war a door def gel da gis sax ñoo xam ne seen yéene bëgg nañoo liggéey léegi bu baax ne ci mbedd yi di ko joxe jox ñin koy jox mën naa am seen loxo yi dafa tilim war mhm. su ba def loxo yi tilim ci loxo yi set lañ ko war a def nga xam ne mi ngi mel ne liggéey bi nga liggéey bi nit ñi yor fii mhm. nekkul liggéey boo xam ne dafay def ay salte ci seen loxo mhm. Mhm. waaye de temps en temps mën nañoo jël seen gel def ko ci seen loxo désinfecté ko ba nga xam ne bu doon par yoo woon nit microbe baa loolu mën na ko désinfecté mhm. waaye euh, kër yi moom ci biir kër yi moom li ñu gën a war a farataal mooy raxasoo ndox ak saabu ku am sa gel nag di ko ci dolli it wàññiwul dara waaye ci loxo yi set lañ koy def kon lii la waaw moo nekk nii kon ko <laughs> am sa poos soo ko mënee ndax bokk na ci li nga xam ne mooy saafara jàngoro ji. mooy kon daal ku ne war nga war nga ci am yow boo paree jox ma sa bos. waaw dee ngeen di jaay am na nag benn élément boo xam ne bii ministère la ministre moo ciy wax. Mhm. Euh, ñu dem seetaan ko dóor di siwaat. matuwaay euh, yu njëkk yi ñu jël déjà euh, ñu koy magnifier mooy wàllu frontière yi aéroport bi ak frontière terrestre yi mais aussi Terre euh, euh, donc euh, ndaje parce que c'est ndaje aussi le mbiri dit di donc amé mais loolu il faut que population déjà jàppale ñu pour effectivité mesures Mesure mesures déjà bu taxawé ñep appliquer ko risque bi wañé ko mais aussi il faut que ñu xamné ne wara wañi effectivement circulation parce que virus le circulation day nek si nit nit ki circuler yóbbu ko feneen circulation bobu nak il faut que ñu mëna def endingment bi taxaw ba wax deug yalla ñepp man ci taxaw ñu wañi circulation bi si réew bu ko defé donc ñu mëna donc régler problème jërëjëf euh, monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu di ko félicité bu baax a baax di ko encouragé ak équipe bi nga xam ne nii moom ñoom ñëpp la àndal ñoom professeur Moussa Seydi ñoom ñëpp ñu ngi leen di félicité macha allah tonton Adé kon dafa mel ni dem beeg dikk bi moom nit ñi dañ ko war a waañ tey raxas loxoy bu baax a baax. gis nga capitaine. mag ñi. aar nañ ñu dem balaa tey di ñëw. ñaari baat dañ ñu ko yare woon ñu nekkee ndaw. dañ da ne tànk bu tee toog dinga yóbbu mbaa nga indi mhm. Mhm. muy benn loolu moo indi noonu mag ñi di ñu yar bu timis jotee mhm. ñu dëj ñu baatu dëj mooy toog loola benn place mu am ku lay sàmm muy sa ndey muy sa baay muy les règles qui régissent la maison kon toogaay bi tey ñu ne couvre-feu nit ku nekk waroon nga jox sa bopp couvre-feu heure booy tëdd ñu teg ci benn baatu olof ñu ne euh, ki réer tëdd mooy wollu et ki réer doxi dégg nga wax bi ki réer tëdd mm. mooy wollu ki réer doxi foofu dama dama koy boole ci laaj bi ma lay laaj mm-hmm. kon nga gis ni ñun duñu societé bu iñaar mm-hmm. nekk ñu société bu xam ne mag ñi dañu sàggan noon boyal mm-hmm. nit ñi ñu mel ne rek ñu amul kilifa. Mhm. Mhm. waaye djelon nañu ay garde fou avant que yalla di indi dogalam bi mhm. tey bu lii yëpp passé yalla na jeex ci jàmm. fan la service d'hygiène ak lan la service d'hygiène ginnaaw corona 19 bi li lan la service d'hygiène ci ay matuwaay di denk nit ñi. te fas yéene leen ci jàppale ëllëg. voilà jërëjëf xam nga yaangi ngi sank li ma doon wax ni Euh, boo dee ñëw di wax ak nit ñi war ngaa xam tamit li ne ci seen biir ndax génne nga fi yu am solo yoo xam ne mm-hmm. ñi ngi koy digal nit ñi ca fekk na ñoom bu fekkoonte ne xam nañ ko mm-hmm. fekkoon nañ ko fi mm-hmm. kon muy muy muy lu am solo sànq tam xam nga raxas loxo yi bu jàllee tamit euh, euh, am na gel yi tamit jàll eau de javel itam mën nga koo utiliser eau de javel mën nga koo utiliser pour désinfecter say loxo waaye loolu tamit day baax ñu nit ñu wax nit ñi lan mooy dosage bi. ndax am nga dosage eau de javel bi waaw ban dosage. Mhm. nga war a doser. ba bi am njariñ. Mhm. natt bi waaw natt bi dafa am solo. Mhm. parce que ñu bari dañuy jël rek xay na sotti. mën naa bañ a yegg ci lii mën a rey doomu jàngoro bi. wala mën naa ëpp ba bis boo ko dee farataal di ko yàgg def say loxo mu indil la say loxo ay gaañ-gaañ. ndax eau de javel kenn ku xam na ne.

bu fekke dama bëgg a désinfecter samay loxo ak eau de javel mhm. ban dosage la mëna jël mhm. lool dana ko jël rek ci jumtu kay yi nga xamne mo ne ci kër yi mhm. ndax xam nga amna ay euh, pan yu and ak satala waaw yo xamne ni mom la parce que raxasu tamit li ci gën moy ndox mi di tour ci sa loxo wante doon lo xam yow da ngay jël sa loxo duggal ko ci biir ndox mi di raxasu ah d'accord donc pan yoy nga xamne amna am na ànd ak ànd ak satala nit teel nga jël sa sabu raxasu ba sa mu sotti la mo gën mo gën soo demee aussi ba bëgg a désinfecté ndax nee la saabu moom tilim lay dindi mhm. si biir kër nga faa nekk liggéeyoo liggéey bo xam ne ni sa say loxo tilim na mën ngaa jël ndox mu am eau de javel lànqali kooku say loxo loolu da ngay jël kaasu huit bi ñu ataaye kooku cent millilitres la mhm. kaasu bi kaasu bi mhm. nga def ko ci satala yooyu nga xam ne mooy ànd ak paan yi parce que satala yooyu trois litres la soo ko ci mélangé rek am nga dosage bi nga xam ne moo baax pour raxas sa loxo mhm. ca sa der eau de javel bi concentration bi du ko mën a kii daal attaqué mhm. te it dana mhm. mën a rey doy na pour rey pour rey kii bi loolu mat a jàppale ci kër yi parce que loolu mooy jumtukaay yi ëpp yi nga xam yi nga xam ne moom la nit ñi di raxasoo ndax léeg-léeg danañ koy wax ñu jaxas sax saabu beeg eau de javel beeg yooyu yëpp loolu gënul saabu yi ak eau javel à part euh, ndox moom tilim lay dindi dana rey microbe waaye bu dee liggéey loolu xam ne say loxo toujours Mm-hmm. mën ngaa utiliser gel mm-hmm. mën ngaa utiliser ndox moo xam ni dafa am eau de javel nga def ko ci dosage bi doo ci def omo te doo ci def omo sax saabu moo gën mm-hmm. saabu moo gën parce que sa raxasu bi dafa dafa am yoon day raxasu ab diir waaw du rek xoj-xoj rek daal di génne nga mën nga mën nga ñu ko mën ñu ko wanaale sax parce que xam nga raxas loxo ah, ah. xam nga sa loxo nii day ah. am microbe yu ne ci poom yi nii ci digg ci digg loxo bi am yu ne ci sa diggante baaraam yi. Mm-hmm. am sax yu ne ci wey ci biir wey. comme ñun jigéen ñi ñuy bàyyi moo tax jigéen ñi. Mm-hmm. ñu mën a raxas dëgg dëgg dañuy tagg seen wey yi. waaw ah. boo yoree wey yu gudd mënoo mm-hmm. raxasu raxasu boo xam ne amal na la njëriñ. kon parce que li mën a ne ci wey da nga koy dindi da nga a teg ko fële. def nii waaw. ak montre yeeg lam yeeg waaw loo xam ni daal ba nga xam ne sa loxo dana libre. waaw waaw nga nga tooyee sa loxo. ci ndox ba pare ba loxo bi tooy. jël sa savon appliqué. appliquer parce que il faut nga jël saabu bi appliquer ci sa loxo mm-hmm. donc il faut nga raxas ko bu baax ci biir nii xam nga fii ci biir ci mm-hmm. biir jonj ko jonj ko jonj ko ñaari loxo yi jonjoo waaw nga jëlaat bii sax jonjaat bi ci kaw fii mm-hmm. ndax fii ci kaw dafa war a dafa war nga xam diggante baaraam yi tamit da nga ciy jaar lu bëree bëree bëri def ko ci beneen loxo bi la même chose après nga def après après sax pousse yi nga xam ne kii nga beral ko noo noo noo koy lépp nag saabu bi tam ne ci yii sax mën ngaa def nii pour mu wóor la ne saabu baa ngi ci mhm. nga jojj ko ci nii donc yii yëpp parce que yii sax ay rëdd rëdd la yoo xam ne mhm. ah jàngoro bi mën na ci dugg ndax doomu jàng daf tuutiwaay bi ëpp na dafa tuuti waaw nga xam ne moom tamit mën nga ko cee jonju nii ci biir kii bi ba nga xam ne doo bàyyi dara donc boo paree ñu sotti la nga lenqali ko mhm. nga téye sa loxo nii bu fekkente ne am nga morceau bu set lu mel ne mouchoir yi nga xam ne set na mën ngaa jël fomp soo ko amul nga téye sa loxo nii parce que li ñu bañ it nga taxaw sa peut-être bàyyi say loxo nii mu kii soo ko defee bu dee ndox mi daa yéegoon ba fii lépp mën naa rogalaataat mm-hmm. loxo da li gën mooy nga xaw a def nii ba sa loxo fendi mm-hmm. xam ne raxas ca loolu lu bon bon bon mm-hmm. war naa mat trente secondes raxasu boobu ngay raxasu boobu ngay def noonu nga xam ne saabu bi danga nga bëgg mu nekk en contact ak li mu rey ndax temps de contact dafa am lu néew néew néew na ma trente secondes même gel bi sax bokay ki ni bul def ni rek patam patam rek. d'accord dari jeexal dem sa yoon. nga war jël sa temps comme niko xadi caméra wu man di defé waaw waaw war a jël temps ndax léeg-léeg euh, soyen yi man nañu jog rek yakamti rek. daal di kii rek fekk na laal naa saabu bi mais taxul nga raxasu. taxul nga raxasu donc raxasu ñun fi ne dañ koy jàngale. dañ koy jàngale ba ci village yi nan nga wara raxasu pour que raxasu bi ñuy wax am njëriñ mooy bii. Mhm. même ñun dañuy dem ba ci àll bi sax dañuy defar. ay jumtukaay pour nit ki mën a raxasu ca du laal limi ki ndax xam nga hmm. yow bu fekkee fekkente sa loxo dafa tax nga ñëw ibi sa robinet man nga am loo bàyyee ci robinet bi nga raxasu ba set nga daal di tëjaat man ngaa ñëw jëlaat nga xam ne boo ci réew yi xam dañoo kii dañoo am yoo xam ne boo dugalee sa loxo nii rek ndox mi day wàcc doo laal dara yow ci suuf nii rek ngay hmm. teg nga raxasu ba set dem gis naa ay jumtukaay yoo xam ne nii sa tànk ngay bës rek waaw jumtukaay nit ñi dañ koy jàng ñoom ñoo koy defaral seen bopp ñoo ko def nit ñi ñoo koy defaral seen bopp xam naa tey amul image sax mais uh-huh. maa koy wax soxna si ne ko même bu li jàllee uh-huh. ñun soxla na ay émission yoo xam ne dañ leen di wan liggéey yi liggéey ci même ba ci village uh-huh. nga xam ne am na ay dispositifs de lavage des mains yoo xam dañ koy jàngal nit ñi ci ay bidon yi ni yoo seen kër yéeg yëpp àndal defar ko ba mu ànd ak nga xam ne boo ñëwee soo bësee rek ndox mi day daal di basculer wàcc sa loxo du laal kii. Eh, ndax sa loxo bu dee laal foofu mën na fa wàcc. microbe bi mën naa koo jëlaat. loolu waaw nga mën na mën nga ko jëlaat daal. xëy loolu bu fekkee raxasu nga pare boo amee mouchoir boo xam ne à papier mën nga sa mouchoir tëjee ko robinet bi. Mhm. nga xam ne yow sa loxo dootu ñëw parce que bu loolu day ba nga ko njëkkee laal. Mhm. mën nga faa bàyyi dara boo ñëwaatee jël ko. xam nga loolu da mhm. da raxasu boobu dafa am solo nit ñi comprendre ne raxas bi nga xam ne dëgg dëgg mooy jëriñ pour mën laa aar. ci wér gu yaram gi nii la war a demee. Mm-hmm. bu bu loolu jaaree sànq maa ngi la kër yi dafa bëri taxawaay yoo xam dañ dañ fee war a taxaw ci OMS togg yi maanaam da war a am habitude propreté. cet xam ci waañ wi la. Mm-hmm. bu dee soxna yi la. ndax raxas loxo yi ñuy def nii dafa am ay barab yoo xam ne sax fan ko gën a bëgg. Mm-hmm. mooy bala ngaa togg. ma nga dem marché yaa ngi. waaw yaa ngi laal yaa ngi def lépp ñëw. bala nga tàmbali togg war ngaa am sa dispositif nga raxasoo comme boo duggee ba pare légume bi nga def ci eau de javel waaw légume bi aussi mën nga koo wutal ndox trempé ko ci kon euh, euh, kaasu huit boobu nga wax waaw ñu war ko def ci satala bi waay jigéen ñi war nañ ko mën a def ci satala teg ko ci seen waay wa teg noonu waaw kay toute la journée mais nag na bu mu passé vingt quatre heures waaw nga xam eau de javel eau de javel bi waaw togg waaw moom euh, même vingt quatre heures yi sax mën na raxasu beeg bi waaw mën na ñoom bu ñu xasee ba raxasu ba seen loxo set xëy na seen bagage ñu toggee mënta indi yenn tilim yi seen loxo mm-hmm. de temps en temps mën na noo jël ci kii orgel boobu nga wax di di di kii sa chaque fois di kii solo am na solo moo tax farataal ah. wér-gu-yaram dafa ah. maanaam set set ah, dafa dafa am solo waxtu wi sax nag euh, dafa jot ñu mm-hmm. bëggoon rek xam ci li nga wax nii yëpp lan nga ci dolli nga tàggoo waaw li ma li ma ciy dolli rek mooy que euh, euh, feebar bi jeexagul

lu xew comme ni ko sëñ bi waxee léegi nga dem ca boo boo fa demee rek mën ngaa am loo jël loolu te ñu respecté yi tamit distance yi yi liggéey yi nga xamante ñàkk mm-hmm. ñun ñu ngi ciy def ay liggéey yu am solo yoo xam ne mm-hmm. actuellement nii ministre bi lancé na opération bu am solo ci biir Dakar mm-hmm. bërki démb nga xam ne démb ñi ngi Pikine euh, tey géejewaay war nañoo continuer après baaw nga xam ne saupoudrage lay doon nga xam dafa dafa am ay lieux yoo xam lu mel ne marché yi heureusement que maire jël na ay matukaay mooy que am na ay heures koy tëj. Mhm. ak di ko tijji. Mhm. parce que marché dafa war a yooyu nga xam ne bu ñu ko tëjee nettoyer beeg entretien beeg désinfection beeg yëpp foofu lañ ko war def ba nit ñi bu ñëwatee duñu fekk dara lu lay indi. xam naa li ñu ci bëggoon a wax xaju fi ah, ah, mais comme ni ma la ko promettre defe ah, naa yu am solo yu bari ndax. nit ñi danañ ko soxla. jërëjëf kat di sant bu baax baax nag vraiment ci invitation bi. jërëjëf capitaine kontaan nañ tonton Adi looy tàggoo. borom basin bu verte bi bu rafet wax nit ñi rekk ne. Hmm. bopp bi am njëriñ. Hmm. mooy bi sax nopp yu dégg. waay ay seetu nit ñi toog ci seen kër hmm, nit ñi nañu sàmmoo. nit ñi nañu xam ne yàlla indi na nattu ci àddina bi yëpp. démb bi huit heures di ci Sénégal. huit heures ci àddina bi yëpp. ku nek yaa ngi gis sa kër mhm. amul bour bu am katan bu mhm. ku dul suñu borom bi subhaanahu wa taala ngir ñu wat ci suñu bop suñu ak suñu bop suñu ak nit ñi ta maam Cheikh Aji Malik radiyallahu anhu dafa waxon ne mhm. ñaar daxul ñaar neena bu wër di ñëwé da ngay bolé ñaar da ngay bolé bàyyi xel ci xam-xamu ñiy faj jërëjëf waaye ngay wëlbati ko di ñaan yalla ah. ma delo la sa kaddu jërëjëf ñaan yàlla mbas mi yàlla yàlla jël amiin jërëjëf tonton Aada ñu sant la gërëm la bu baax a baax waaye it euh, sant gërëm euh, capitaine euh, di leen wax ne rek ba suba ak jàmm incha allah